waaw mbiri Sadio Mané nag li ñu koy wax rek mooy di ko ñaanal yàlla ñun muy ballon door européen mu ñàkk koo nekk muy ballon d'or monde bi ñun ëpp na ballon door si ñun ñun Sénégal ñun moom lañu bëgg suñu doom la ànd ceeg yeneen xele yi muy football la lool ci équipe nationale bi ñoom ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar bégal nañ ñu léegi nag xarañam tax na ñu ngi koy xalaatal ballon d'or man nag du ma nekk ci ñi koy encouragé muy xalaat ballon d'or bi moom li ko war mooy nay gën di jëm ci kanam na concentré wu ci liggéeyam lu mu laaj ci entraînement lu mu laaj ci concentration na ci ne ba fu mu duggee ci terrain bi def lu kenn mën na def xam nga nag loo xamante ne bu ñu koy tànn doo ko fekkee nañ koy tànnee it am na loo ci xam it am na loo ci xamul parce que liñ ñuy wax ñu di ko dégg est-ce que réellement lépp noonu lay tëdde kenn xamul waaye li am solo mooy eh, géej moom kenn mënu koo téye ak say loxo moo tax xam naa ne bu commencé di continuer rek di gën a am performance bu yàggee xam naa ne bu ñuy tànn te kenn rek ne fi xanaa bu ñuy tànn dinañ ko tànn waaye li am solo du loolu la ñuy visé ñu li ñu visé daal mooy fi ñu ko teg teg nañu ko fa lii xew nag ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am ci nam waaw xam ngeen ne bi ñu ñibbisee ci coupe d'Afrique bi dañu ñëw ndakaaru waa ndakaaru yëpp génn président Macky Sall nag nga xam ne dafa bëgg ñëpp yem ci réew mi daf ñu ne lii nga xamante ne wër nañ ko depuis mille neuf cent cinquante wala kenn cinquante sept ans ñuy wër coupe d'Afrique daanaka Sénégal sax dañu bu ñu yemat ci cinquante sept ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey ñu ngi war coupe d'Afrique mm. ñu ko am yàlla jagleel ñu ko ci xeex nag boo xamante ne joueurs yi def nañu ko peuple bi def ko fédération def ko état du Sénégal def ci lim ci war a def président Macky Sall bañ ko ko joxee la ne lii dañ ko war a wërale ci réew mi su ko defee ñëpp ñu nekk ci réew mi mun a gis coupe d'Afrique bii dem ci quatorze région yi permettre gouverneur baak responsable yi ñu mën a jël sax ay portele ci li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi parce que lu taarix di retenir la loolu nag dinañ ko démarrer bu korité passé dinañ dem fépp waaye nag xam nga ne ku wax tàggat yaram Sénégal nag wax aada wax wëy wax wax wax lu sax xele yi fépp nag bu ñu fa fanaanee dina xumb trop nag fépp fu ñu xa fanaan moom bëgg nañu ay Wally Seck ak ay Pape Diouf ak ñooñu ñëpp nga xamante ne ay ñu xale yi bëgg lañu Youssou Ndour di ci ñàkk ñooñu ñëpp fu ñu dem daal bëgg nañ faa fanaan mu yëngu tuuti bu yëngoon nag ba bët set balaa ñoo dem dinañ gis ñi jiite tàggat yaram ca région ba su ko defee ñu weccante xalaat lay sooxee ñu mun ko bind lañ ca mun a saafara ñu saafara ko ci bés bi lañ ca mun ko saafara ñu yóbbu ko Ndakaaru waxtaane ko pour andi ci ay solution